aousubillah min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa molana mohammadin ilmakin waala alihi wa saxbihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi am mbégte mu rëy di leen nuyoo ci barab bu tedd bi di jumaay Tuubaa di leen ziyaara bu baax te di leen dokkeel di ndokkeel mboolem jullit yi rawatina taalibe Serigne Touba yi ci bis bu tedd bii nga xam ne moom lañ jublu mooy màggalu Touba ma di leen nuyu nag ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma gépp di am mbégte nag tey jii ñu dalaloon fii kilifa gu tedd gii di Serigne Dame Fall teewal fi Serigne Amdi Mbacke Serigne Amdi Modou Mbende Fall mi nga xam ne mooy xarifa général bu Baye Fall. teewal fii teg njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ak délégation bii mu àndal ñu doon waxtaan ci ndigal yi nga xam ne sëriñ bi daf leen koo jox ci wormay Touba te jumaa ji nekk ci biir Touba bokkit it ci worma jooju ñu nekkoon fi daan sàmm worma jooju liggéey ndigal li leen sëriñ bi jox nag ñu war koo jëfe te di ko jëfe ci na mu gën a rafete tax na mënuñoo ñàkk a seq ab jataay ngir waxtaane li nga xam ne dañ ko seq di ko liggéeyee ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi ñu di ko sant nag bu baax di ko gërëm bu baax di ko yóbbante suñuy sant ak suñuy siyaare ak suñuy ñaan ci kilifa gu tedd gi nga xam ne fala bàyyi ko ak njaboot gu tedd gi nga xam ne ñooy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci woyof gi mu am ak dal gi ak yaatal gi ba ñëw fii seq ak noonu ab jataay ñu waxtaanee li nga xam ne mooy ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe ñu war koo sàmmonteel ak li nga xam ne moom la fekkoon sëriñ bi joxe woon ko ci jumaa ji di rub euh, ay at yu bari ñu daan ko doxal ci biir jumaa ji ñaar nag bu fekkente ne dañoo ànd ab liggéey seq ab liggéey dañoo war a waxtu wu nekk ñu toog di ko waxtaanee ba tënk ko ci noo xam ne danañ ko mën a doxal te dara du yàqu loolu rek moo sabab jataay bii nga xam ne amoon nañ ko jataay bi nag li ci tukkee nekk na lu am solo loo xam ne eh, yaakaar naa ne suñ borom mën nañu cee dimbale ci kàttanu yàlla ci barkeb Serigne Touba ba nu amee ko ni ko bëggee te ni ko bëggee mooy jëfe ndigal li na mu gën a rafete gën naa mate gën naa selle gën naa itam yaatoo loolu rek mooy suñu bëgg-bëgg jàpp nañ suñ ko defee rek danañ ci am ngërëmul sëriñ bi te ngërëmul sëriñ bi rek la ñuy sàkku àdduna ak àllaaxira kon nag tënk nañ point yi nga xam ne ci lañ war a liggéey bi nag day liggéey boo xam ne bu yaatu la ndax ñoom seenu liggéey dëkk bépp la matale waaye nag penc mi ak jumaa ji da cay am wàllu rëy woo xam ne euh, murit yëpp dañ ko war a bàyyi xel képp kuy ñëwit war koo bàyyi xel te mooy war ma ji nga xam ne moom lañ war a jox dëkk bi dañuy wax ne su doon benn war nañ cee dolli juróom-ñeent muy fukk ñu jox ko barab bii nga xam ne fii la bi nekk euh, di fi noppaloo te muy boole nekk ay worma yu bari worma ja ca njëkk mooy néegub yàlla la worma ja topp mooy barabu cheikhul xadim la euh, worma ja ca topp itam mooy mooy mooy mooy yaakaar yi jullit ñu baree baree bari ci àdduna bi la xëy na du ma sañ wax nañ ñëpp waaye ñi ëpp ci àdduna ñu bari moom lañ fo fu ñet yooyu yëpp war mooy yooyu yëpp daje nag war na wares na koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax suñ borom nag moom la soob mu sàkk ay barab war maa leen ni mu sàkk ay jëmm war maa leen barab bii nag bokk ci barab yi nga xam ne suñ borom daf leen a war maal ñu bari yàgg ko xam ci ay awliya yu jiitu woon daan ko wut waaye sëriñ tubaa nee na barab bi moo ko tànnal boppam barab bi moo tànnal boppam sëriñ tubaa kon nag loolu rek loolu dong bu fekkonte ne tey jii nekku fi di fi noppalu su fekkonte ne tey jii nekku fi def fi jëmam ji waaye yëg nañ ne barab la boo suñu borom tànnalam sëriñ tubaa barab bi tànnal boppam sëriñ tubaa sëriñ tubaa tànnal boppam barab bi ñetti tànn yooyu yëpp daje ci barab bi war naa tax ñu jox ko war mu ju mat sëkk su yooyu yëpp dajee nag euh, ki fi ñëw laaj na ñu xamal ko bu accès nan la fi war a nekkee ba ba mu fi jógee ndax jàpp naa ne mboolem ku jóg te jógee këram ñëw ci barab bi dafa ñëw ngir sàkku fee defaru waaye sàkku fee yàqoo ñàkk xam nag mën na koo dugal ci lam bëggoon mu jëlee fi safaan ba te fekk ak ñàkk xam moo ko koy teg bu boobaa nag ñun ñëpp dañ ciy am responsabilité ndax xëy na suñ ko xamaloon ba mu xam ko mm, lam bëggoon te di ko wut rek loolu lay am ngir nag képp ku fi ñëw la nga bëggoon te di ko wut si nga man koo am moo tax ndaje mii tey ji ñu am seq ko ak kilifa yu tedd yi kon sëriñ Jaam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax di rafetlu itam jataay bi bu baax a baax a baax a baax di la yóbbante suñuy nuyoo ak suñuy ziyaara ci kilifa gu tedd gi ñuy ñaan sun borom mi nga xam ne dara taw ko ci barkeb Cheikhul Xadim barkeb Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér te mottali ay yéeneem ci liggéey bi yi nga xam ne moom la soobu euh, yaakaar ji nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba am ci moom ba yëkkati liggéey bu rëy bi teg ko ci loxoom yàlla na ci am ndam lu kawe njort li xam ne moom la ci séntu murid yëpp di ko ci séntu murid yëpp am nañ ci yaakaar te jàpp nañ ne itam lépp ligal ndax ndigal lu mas a jógee ci kër Serigne Touba ñëw ci yéen rek defe nañ ko nañ ko bëggee kon ndigal lii itam. loolu rek lañ ciy mën a séntu te loolu rek lañ ciy am yaakaar kon nag ñun ñu ngi leen di tàllal loxo ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu seq ci barab bu tedd bii nga xam ne mooy barabu Cheikhul Khadim laaj war ma yu baree baree baree bare yuñ ko war a jox te war ma yooyu nag kenn du ko jàngal ab bay Faal moom jàpp naa ne waaye nag murid yi nga xam ne dañoo jógee ci biti te xamuñu laaj nañu jàngal leen ko loolu nag eh, dama lay bàyyee yaa gën a jekk ci <laughs> wax ak ñoom ci taalibe gi nga xam ne ñëpp xame nañ ko ak bay ak ak Baay Faal waaye ak yow itam sun borom ñëw defal la ndimbal ba yaakaar ñi nga xam ne moom la sun kilifa gu tedd googu am ci yow mboolem njabootu Cheikh Ibrahima gi am ko ci yow ba yëkkati kàddu njabootu euh, Cheikh gi teg ko ci sa loxo loolu yàlla na la yàlla sàmm dëgëral la ba nga mën koo àggale foo kawe njott te suñ borom musal la ci pakk yëpp musal la ci ndog yëpp ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la jox kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu suñ mbokk yi fi teew yëpp kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew jëwriñ yi nga xam ne ñoo téye daayira Muxaddamatul Xidma fi bërëb bu sell bi bu màgg bi di di jumaay tubaa di am taw feexu jottali canti sëriñ bi ak i gannaaw ay nuyoom ay cantam ak i ngërëmam euh, mu jëm si njaboot gi nga xam ne yëpp muy kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fekk fii si jataay bi euh, te sëriñ bi yabal nu fi nu ñëw fi si kàddoom ngir ñëw euh, seq ak ñoom waxtaan woo xam ne lépp mu ngi jëm si luy sàmm war may dëkk bii ak war may bërëb bi nga xam ne fii la nu nekk loola di tawféex sunu suñu blaat ñu ngi koy sant bu baax di wax ñaan yëpp yàlla suñu boroom jotal leen si te li sëriñ bi bëgg si nun lépp mu am ko waaye noonu liñ bëgg sëriñ bi lépp nu am ko jaraay bi nag sabab bi moo doon liggéey bi nga xam ne sëriñ bi teg na ko si loxol njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall muy lépp loo xam ne luy sàmm wormay Touba la mu waxee may tuubaa nag day mel ne jumaa ji moom dara jiituwu ko si ndax jumaa ji moom mooy Touba noonu ko sëriñ bi waxe yi dajee fi jumaa ji yépp nag muy bërëb la boo xam ne néegu yàlla sunu borom la ehm, muy néeg boo xam ne bii bu kawe la bu màgg la ehm, li si dolliku Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tëdd fii di noppalu ni ko sëriñ bi waxe yooyu yëpp nag di eh, màndarga yoo xam ne eh, jar na nu wormaal barab bi war ma joo xam ne ji euh, dina wuute sax ak war ma ji ñuy wormaal feneen ndax euh, mbir mu ne euh, la nga xam ne moo sa aju moom dana ko dana ko jox dayo bu kawe mbaa jox ko dayo boo xam ne buuteeg booba la waaye bërëb bii moom day bërëb boo xam ne bii bu ñuy wax tuubaa fii rek tax ñu naan Touba ndax képp ku tàbbi si dëkk bii li sa xel njëkk a jëm rek mooy ñëw si bërëb bii ñaar nga joxe si waxtu yi nga xam ne mooy waxtu farata yi walla nga dugg si barabu ko tedd kii eh, siyaare ko ñaan eh, li nga xam ne mooy sa bëgg loolu lépp nag eh, tax na ba ni ñu ko war a jàppee jàpp la goo xamante ni gii dina waruñu koo méngaleeg feneen fu mu mën a doon war ma jii nag bi ko sëriñ bi dénkee njabootu seerafaal gi tudd Touba kon day mel ne kon fii moo si jiitu rawatina nag ci jamono bii ñu toll ak lii ñu dëgmal muy bis bi nga xam ne mooy bisub bisub safar fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar te nga xam ne day mel ne tàmbali na sax ndax moom waajtaay bi day day day bu ñu si génnee rek day mel ne ñu ngi waat si waajtaay bi eh, ñu bari di fi nag di bàyyi ko fu ne sedd kenn ku ne di ñëw ak sa pas bëgg waaye fekk na bërëb bi am lu mu laaj loo xam ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk te di ko saytu ñoom it ñi ngi sàkku nañ képp ku fiy tàbbi nga sàmmonte ak melokaan woo nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg nu mel ni bokk na ci worma ji mooy nu mel melokaanu jullit doon boo xam ne kenn duñu gis eh, di di nattable ndax ay jullit lañ wala duñu jullit yor melokaanu taalibe boo xam ne kenn duñu gis di nattable ni ñii si njabootu sëñ Tuubaa lañ bokk taalibe sëñ Tuubaa lañ loolu nag li muy firi mooy dañuy dañoo war a doon nit ñu yiw Euh, si si si melokaan euh, muy si biir ak si biti euh, mbooleem lu wuuteeg loole ñu woon ko ginnaaw ni ko sëriñ bi diglee te te sàkk ko si murit yëpp rek ñu fexe ba doon ay ay ay taalibe yoo xam ne dañuy roy si mag ñi ak ñi àndoon ak Sëñ si si melokaan ak si doxin ak si lépp loola bu nu si nekkee rek sëriñ bi dinañu dimbali ba li mu bëgg si dëkk bi muy euh, taxawaay bi mu am ci àdduna ba ñëpp jóg dëgmal si ko loolee képp ku fi tàbbi nga xam ne loola moom mi ngi si biir Touba mooy nanu ñiy ñëw di màggal si ñi ngi sàkku si ñoom góor ñi ak jigéen ñi képp ku fi tàbbi nga fexe ba sàmmanteeg melokaan woow muy col gu jot ndax sëriñ bi dafa wax ni bëggul ñu tàbbi fii ak col goo xam ne dafa gàtt walla col gu xat walla col gu yaraax bu dee si soxna yi ñu fexe ba muur seenu yaram ba dara loo xamante ni si lu wërta feeñ du feeñ bu dee si góor ñi la ñu sol yére yoo xam ne yére yu jot lay doon waaye yëre yu méngoo ak bërëb bi nag ndax léeg nga gis nit waaj ba jekk sax euh, jàpp ni moom la mu sol yére yu waajtaay la fekk na yére la yoo xam ni mënta tàbbi si jumaa euh, rawatina bërëb bi nga xam ne fi la Sëriñ Tuubaa tëdd li nga xamante ne si mooy warumu jumaa ji biir gi ak biti gi képp ku fi képp ku fi ne na nga xam ne bërëb bu sell bii moo tax ñëpp di bàyyi ko si àddina fu ne di ñëw kon nag képp ku fi tàbbi na nga ànd ak melokaan woo xam ne melokaan wu sell la euh, bu dee li wër jumaa jiit euh, dañoo am yéene ku melut ni nga xam ne noonu lañ bëgg nga mel ni doo sax agsi si biir jumaa ji loolooy sababu fas nañ yéene njabootug Seera Faal gi danañ nekk li wër jumaa ji eh, ba képp koo xam ne kii agsi nga ak melokaan woo xam ne bokkul ak melokaan wi nu taamu eh, danañ la soññi laabire la ba eh, nga dem soppiwaat aw doxin soo ko mën a agsi si biir jumaa ji képp koo xam ni nag loolee wax dëgg yàlla doonul sa jubluwaay it lu jar jëflante danañ ko jëflante ak yow ndax ndigal la ñu am si sàmm war may dëkk bi ni nga xam ne noonu lañ koy sàmmee si bërëb yëpp si biir Touba waaye nag rawatina fii nga xam ne mooy jumaa ji te ñëpp di fi daje eh, si bis bu màgg boobu nga xam ne mooy bisu màggal gi tere yi nag ni ñu ko waxee wax nañ ko si rajo yi wax nañ ko si eh, télé yi ñëpp dégg nañ ko waaye nag danañ gën a yaatal waxtaan woowu ba foofu waay nekk boo amee yéene ñëw Touba nga àndaale waajtaay woowu xam ni Tuubaa kat sëriñ bi wax na ni am na yu mu teg yoo xam ne bëgg na képp ku fi tàbbi nga sàmmoonteeg loolee euh, nag tawféex la si nun ñëpp ndax kuy wuti am rek nga bëgg kon nag lii tax nu am loola waruñu koo sàggane te lii tax nu am mooy ñu tàbbi fi ak melokaan wu yiw melokaan wu sell melokaan wu jub euh, woo xam ne wii euh, li nuy bëgg lépp des na ko mën a ñaan tàllal suñu loxo am yaakaar si ne suñu borom daan nu ko defal fas nañ yéene daal ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ñun njabootug maam Cheikh Rafal si lépp lu nu ko bëggee taxawoo liggéey bii ñu ngi leen di déglu lépp lu nu si sant rek bu soobee yàlla danañ sa tàbbi eh, nanu ko bëggee ànd kook ñoom ba luñ si séentu rek loolee nu am ko eh, ñu ngi daal si seen wet seen xablaat ñu ngi si seen ginnaaw ñu ngi leen di déglu eh, li wër jumaa ji daal fas nañ yéene njabootug Cheikh Rafal gi daan nañ fi ne. danañ ko wattu danañ ko artu képp koo xamante ni kii bàyyi foo nga si barab boo fi egsi daal nanga xam ni bërëb bi daal bërëb bu sell la te it am na ñu ñu ko dénk ñu di ko saytu te du ñu nangu mukk ñu tàbbi fii si melokaan wuuteeg ba sëriñ bi bëgg loolu ñu ngi ñu ngi ñi ngi am yaakaar sax ni ne ñi fiy tàbbi danañ dégg kàddu yooyu te danañ ko jëfe incha allahu fas yéene nag yaatal ko fu ne rek fu suñu baat mën a àgg wala sunuy pexe mën a àgg rek danañ ko yaatal incha allahu waaye nu xam ne rek war may Tuubaa moom si jumaa ji la tàmbalee eh, soo ko jàll nag nag lii fii moom danañ fexe ba war ma ju fi aajowoo rek danañ fexe war ma joojo ñu sàmm ko ba eh, li ñu yaakaar si bis bii lépp nag eh, nu mën a am yàqante ne sëñ tubaa dana ko teg sunuy loxo jóge fi barab sonn lool dépenser sa xaalis ñëw ba egg si Tuubaa te li sëñ Tuubaa bëgg nga mel ni meloo nen dara feeñu si si yow loola murit bu ne wala kuy sàkk lu baax ku ne war na ko war na ko moytu kuy ñëw daal war ngaa jël matuwaay yëpp nga xam ne boo ñëwee day lenn soo tàllalee say loxo ki ko dékk dana la ko nangul eh, ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp eh, wax ni kàddu yi moom xañ na kii waaye nag liñ jubloo wax daal mooy ñu ngi seen ginnaaw rek lépp lu ngeen nu si digal yoon wu ngeen si bëgg nu aw sa rek yéen ñu ko sëriñ bi dénk fas yéene ànd kook yéen ba nu ngeen ko bëgg rek ngeen amee ko noona jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.